asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokku jullit yi mbokku taalibe ñu ngi am ak yéen njaareem ñu ngi jàkkaarloo ni ak kër maam Cheikh Ibrahima Fall fii si njaareem tey nag euh, di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre 2011 ñu ñëw pour fas yéene fi def reportage ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall bii kër gii nga xam ne ni fii la maam Cheikh Ibrahima Fall dëkkoon si euh, njaareem euh, ba muy wuy ji sunu borom fii la nekk fukki at ak juróom Euh, ñu ñëw tamit euh, euh, di fi def reportage moo tax ñu di leen di woon kër gi bâtiment bi nag moo nekkoon bâtiment maam Cheikh Ibrahima Fall boo xam ne ni dëkkoon na fi am na tamit ay yeesal Serigne Cheikh Ndigal Fall muy Serigne Cheikh Rokhaya moom moo ko yeesal ci atum 1998 ndax kër gi këru ban la woon mu nekkoon tuile Euh, bu sëñ Cheikh Ndigal ñëwee ci 98 euh, mu yeesal ko daaneel tabax bi daal di ko terrassaat nii waaye ci biir yeesal bi tamit Serigne Cheikh Rafaal Fall dafa respecté plan bu fi nekkoon nga xam ne ni ko maam Cheikh Rafaal plan woon moom moom la ko euh, liggéeyaatee waaye da ko def terrasse dindi tuiles yi gis ngeen ñu ngi jàkkaarloo nii ak batiment bi teen bi tamit ñuy séen ci tàmbali batiment bi mooy teenu moom la ñu duppee teenu maam. nga gis ni loolu tamit Cheikh Ibrahima Fall moom moo ko fii def gis ngeen tamit ñu ngi ànd ak yéen ba léegi fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi jàkkaarloo ni ak foire bi ci biir kër gi foire bi nag moom euh, ñu ngi ñuy xamal ni Serigne Cheikh Fall baay Góor moo ko fi jot a euh, tabax gis nga ñu ngi dugg ak yéen nag ci biir kees yi fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall si njaareem si euh, ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre 2011 ñu ngi nii nag euh, jàkkaarloo ak. Euh, néeg bii nga xam ne ni moom euh, seng bi fii la ñuy tuddee baragu euh, ndànd ngeen gis ni tamit li yëpp ay yeesal la yoo xam ne defaat nañ ko fi ngeen gis ni euh, nu ñu miireewaat kër gi nga xam ne ni Serigne Cheikh Rokhaya Fall yeesal na ko fi ànd ko tamit ak waa Daïra Njaareem ngeen gis ni dañu nekk tamit ci ay yeesal ba léegi loolu moo waral sa ñëw leen koy wan gis ngeen daqaar bii nag moo fi nekkoon jamonoy maam Cheikh ba bu mu fi jóge ñu di fi def ay ziar. Euh, ngeen gis ni euh, Dakar bi nag moom moom fu mu toll nii wàcc na rek ëkk bi fi des ñu ngi nii nag jàkkaarloo ak buntu kër gi fii nga xam ne ni euh, fii ngay duggee ñëw ci biir kër gi gis nga teen bi tamit maam Cheikh Rahma Fall moo ko fi gasoon ci ay jamono waaye lépp Serigne Cheikh Rokhaya Fall moom moo ko yee salaat kon ñu ngi ànd ak yéen ci 2011 tey nag bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre ñu nekk ak yéen fii ci biir kër maam Cheikh Rahma fii si Njaareem ci kër Cheikh. ànd ak yéen fii euh, ci kër euh, Cheikh fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall euh, ñu ngi nii nekk di dugg ak yéen rek ci biir kees yi ngeen gis ni fii yëpp ci biir kër gi la ci biir wana gi nii ñu ko keesee tamit wax dëgg yàlla sëriñ Cheikh Roqe Fall ànd na ko ak waa daayira Njaareem ñu liggéeyaat ko ngeen gis ni mur yi yëpp ñoom ñoo ko fi yeesalaat ñu fàttalikoon rek ni fii maam Cheikh bu mu njëkkee ñëw Njaareem mu ngi dëkkoon ci quartier bu ñu tudd Madina foofu la dëkkoon dëkk na fa lu mat ñetti at. Euh, gannaaw bu mu fa jógee nag la daal di toxu si fii ñëw fii euh, nga xam ne ni fii mooy kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi xamal ni maam Cheikh bu mu ñëwee Madina dëkk fa euh, dafa am benn épidémie bu amoon ay ñu tuddee ko peste moo demoon ba metti woon lool ñu am mu am ndigalal toxu nag daal di ñëw fii toxu fii bu mu ñëwee nag ñu tuddee ko kër Cheikh kon ci 1915 bu ñu juumul ci la maam Cheikh euh, toxu si euh, fii nga xam ne ni fii euh, la def fukki at ak juróom ba 1930 gis ngeen batiment boobu ñu romb léegi foofu sax dinañ ko leeral ci kanam tuuti ngeen gis ni mu nekk ay travaux foofu la maam Cheikh wàccee liggéey ñu ngi ni nag jàkkaarloo ak barak bi ngeen gis ni ñu yeesalaat ko ni barak bi nag di baragu ndànd lu waral baragu ndànd Euh, ndax euh, barag bi jamono yi si maam Cheikh Ibra Fall nekkee ca ndànd la ko liggéey euh, bu mu ko liggéeyee nag ca ndànd nekk fa ba am ndigalal taxu ñëw Thiès ñu démonté ko indi ko Thiès mu nekk ak moom Thiès bu mu ñëwee tamit njaareem am ndigalal ñëw fii ci la daal di démonter barak bi indi ko fii barak bi moo nekk nii ngeen gis nag ñu nekk di yeesalaat nii euh, vraiment barak bi ak tabax bi nga xam ne ni fii la wàccee liggéey euh, ngeen gis ni Serigne Cheikh Rafaay mu ngi nekk ci yeesalaat euh, kër gi yeesal bi nag liggéey bi tamit duñ ci ñàkk bañ a lim jëmm ji nga xam ne ni moo ko ànd ak Serigne Cheikh Rafaay Fall di Serigne Cheikh Sène moom Serigne Ibrahima Sène ñu koy wax Cheikh Sène Badane moom ak Serigne Cheikh Rokhaya Fall ñoo ànd ci liggéey bi ci ndigalal Serigne Cheikh Rokhaya Fall moom Cheikh Sène euh, mu ànd ci ci wàllu financement yi daanaka lépp moom moo ko def waaye lépp ci kaw ndigalal Serigne Cheikh Rokhaya ak ci yéene Serigne Cheikh ndigal ndax lii tey Cheikh seen financé di ko defar euh, lépp. yéene Serigne Cheikh Rokhaya Fall ndax man maay fàttaliku en 98 bu Serigne bi euh, di liggéey euh, tabax bi euh, mu ngi doon xalaat lu demee nii naan wax dëgg yàlla bëgg naa ko def ba mu nekk ziarekaay ba nga xam ne ni dinañ ko def genre musée di man di exposer bagage u maam Cheikh a Fall ba taalibe yi man di fi agsi di ko ziare te kenn du ci def benn gàllankoor bu ko Serigne bi waxee ci 98 gis ngeen bu ñëwee ba 2011. Euh, sëriñ bi nag euh, am yéene liggéey ko euh, daal di ko ànd ak Cheikh Sène daal ko jox ndigalal liggéey bi Cheikh Sène yore wàllu financement yépp ñu ngi nii nag jàkkaarloo ak Moustapha mbay ak Ndiogu Ndiaye ak Alioune Ndiaye ngeen gis ni Moustapha Mbaye ak Ndiogu ñoom it ñu ànd ko ak Cheikh Sène di ko taxawul liggéey bi Euh, tabax bi nag euh, ñu euh, jaakaar lool ngeen gis ne ñu yesalaat ko nag wax dëgg yàlla barab bi nag fii ñu leen di woon fii la ñu mëjee gis maam Cheikh fii la wuyjee sunu borom fii si njaareem tey ngi ànd nag ak yéen fii ci euh, biir euh, barab bi nga xam ne ni fii la maam Cheikh wuy jee sunu boroom muy barabu ziyaarukaay di barabu ñaanukaay euh, gis ngeen rek nuñ ko yeesalaatee nii ñu fàttalikul rek ni tamit Serigne Cheikh Fall Baye Góor moo ko jotoon tabax waaye tabax bi rek da ko dañ ko tabax ba terrasse ko rek waaye amuloon finition ngeen gis ni ci biir yeesal bi Serigne Cheikh Roqe Fall di def ànd ko ak Cheikh Sène ci lañ ko yeesalee nii gis ngeen nu mu taaroo lool nekk accès à tout le monde ñëpp mën nañ fi ñëw ak si di ziare fii ci barab bi nga xam ne nii fii la euh, maam Cheikh Ibrahima Fall wujjee sunu borom ci atum 1930 fii euh, si euh, njaareem gis ngeen yeesal bi gis ngeen barab bi wax dëgg yàlla nu mu taaroo wax dëgg yàlla liggéey bi aw na yoon lool rafet na ñu ngi ñaanal Serigne Cheikh Rokhaya Fall yàgg fi ci wér ñu ak ñu mu àndal ci liggéey bi yëpp ñuy ñaanal Serigne Cheikh seen tamit yàlla dooleel ko kattanal ko ba lii mu mébét di ko liggéey ànd ko ak sëriñ bi mu yàgg koo man ba ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin gis nga liggéey bi euh, daanaka mun nañu wax ni noppi na rek léegi nag euh, tamit ñu fàttaleku la rek euh, ni fii njaareem fii la maam Cheikh mujjee moo tax mun nañu wax ni ay bagage am yëpp ñu ngi fi dara jógu fi waaye dañu bëgg bu liggéey bi pare ñu daal delloo bagage yi bagage bu ne foo war a dugg sëriñ bi dugal ko fa ngeen gis ni moo tax ñu ñëw leen di woon barab bi daata Euh, tamit euh, ñuy àndiwaat euh, bagage yi kon ñu ngi ànd ak yéen fii ci barab bii nga xam ne ni mun nañ ko wax ni tey mooy mag Baye yi fii nag la ñu mujjee gisee jëmm ji di maam Cheikh Ibrahima Fall fii la wujjee sunu borom kon ñu ngi ànd ak yéen leen di won liggéey bii nga xam ne ni Serigne Cheikh Rokhaya Fall mu ngi ko liggéey ànd ko ak Cheikh Sène fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall fii si Njaareem gis ngeen rek euh, bu ñu leen woonee nag euh, fii ci biir barab bi nga xam ne fii la maam Cheikh euh, wuy jee sunu borom léegi ñu ngi nii nag leen di won biir baragu ndànd moom it bu ñu yeesalee biti bi gis ngeen biir bi tamit ñu ngi nii def fii ay ka ay mun naa wax ne ay étagère yu rafet yoo xam ne ni wax dëgg lépp en verre aluminium ngeen gis ni étagères yi nag fii lañu ñu fas tamit dugalaat bara bagage yi nga xam ne ni bés bu ñu ko sëriñ bi euh, jubloo ci biir bagage yi la fas yéenee dugal euh, yenn bagage yu maam Cheikh yoo xam ne ñu ngi euh, pour doomu aadama yi di man di ko gis nga xam ne fii lañ ko war a mun di exposé kon ñu ngi ànd ak yéen fii ci kër maam Cheikh Rahima Fall fii si Njaareem ci kër Cheikh. ci liggéey bii nga xam ne ni Serigne Cheikh Rokhaya Fall ànd na ko ak Cheikh Sène ngeen gis ni liggéey bu am solo bi bu rafet bi ngeen gis ni nii ñu ko yeesalee wax dëgg yàlla taaru na méngoo na tamit ak jamono méngoo na ak borom euh, kër gi ndax wax dëgg yàlla maam Cheikh euh, mérité na ko lii nga xam ne ni war nañ ko war a mën a liggéeyal defal ko ko mun ci exposé ay bagages am kon ñu ànd ak yéen fii euh, wax dëgg yàlla si njaareem ci kër maam Cheikh Rahima Fall ñu ngi ànd ak yenn fii euh, si njaareem ci kër Cheikh ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall fii euh, ci euh, ba biir baragu ndànd ci liggéey bi nga xam ne ni ñu ngi koy def di ko yeesalaat wax dëgg yàlla mun naa wax ni kër gi rawatina nag fii nga xam ne ni fii la maam Cheikh nekkoon mu nekkoon barabom mu dëkkoon fii nekkoon fii wax dëgg yàlla nga gis ni Serigne Cheikh Rafaye Fall. noppil euh, di ko liggéeyaat rek euh, depuis 98 ba léegi wax dëgg yàlla ñu ngi koy yeesal ñu ngi tabax ñu ngi defar ñu ngi muré euh, waaye ci 2011 bi nag liggéey bi mooy lii ñoo ko gisandoo wax dëgg yàlla liggéey bu sell bu rafet bi bu taaroo ni aw ci yoon mun nañu wax ni. sëriñ bi bii ko def ànd ko tamit ak euh, Cheikh Sène wax dëgg yàlla euh, ñu di leen di ñaanal rek euh, ñu yàgg fi te wéer ba lépp lu ñu namm liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall ñu àggale ko ci alhamdulilah rabil alamin kon ñu ngi ànd ak yéen fii si njaareem tey nag di 25 septembre 2011. Euh, ñoo ko gisandoo rek gis ngeen euh, nii liggéey bi euh, jarul sax commentaire bu bëri ndax wax dëgg yàlla sell na tegu na ci yoon gis nañu tamit vitrine yi yëpp nga xam ne def nañ ko fi xam naa ni nag. fii ay fan yu néew euh, dinañu dugal bagage yi nga xam ne ni ñoo nekkoon fii ndax fii euh, ay lalu maam Cheikh ñu ngi fi woon ay bagage am ay armoire lu ne lépp loo xam ne ne ay bagage ay jumtukaayam ay téere yu mu doon jëfandiku ba ci euh, deru tudd doomu Serigne Touba yi nga xam ne nii yëpp mu ngi fii ngeen gis ni fii nekkoon tamit ci biir néeg bi nga xam ne ni euh, néeg bi ñu toll euh, maam Cheikh daawoon na fi wéet nag di fi jaamu sunu borom ngeen gis ni euh, wax dëgg yàlla tamit liggéeyaat nañ ko yeesal ko. Euh, ba mu taaru lool kon ñu ngi ànd ak yéen fii ci biir kër maam Cheikh Ibrahima ngeen gis ni Serigne Cheikh Rokhaya mooy lii fii euh, taalibe bu ñëw war nga fi mën a dugg agsi fi euh, wax dëgg yàlla ziare fi ñaan fi sa soxla ndax fii këru ziar la la ndax fii dafay kër gu barkeel ndax maam Cheikh Ibrahima la nekkoon di jaamu sunu borom ànd ko ak Serigne Touba ngeen gis ni fii ci biir néegu néegu boppam la woon. ci biir euh, barak bi nga xam ne ni daaw na fi wéet di fi jaamu sunu borom moo tax gis ngeen tamit euh, taal mbokku taalibe yi nga xam ne ni ñoom ñoo yore liggéey bi ànd ko ak sëriñ bi euh, di ko taxawul liggéey bi gis nga ñu ngi nii tamit di fi ziyaare di fi ñaan ñuy ñaan lépp luñ fi ñaan yàlla na yool bi fekk maam Cheikh Ibrahima Fall tëdd yàlla yokk ay leeroom ci xare ko ci àjjana yu génn barke te taax ñu suñ barke euh, ci barkeewam ñuy ñaanal tamit euh, Serigne Cheikh Rokhaya Fall mu yàgg fi te wéer euh, ànd ko ak Cheikh Sène ak ñun taalibe yëpp ba liggéey bii ñu xam ne namm nañ ko liggéeyal maam Cheikh Rahima ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin kon ñu ngi ànd ak ak yéen fii si njaareem ci kër maam Cheikh Rahima Fall si ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre 2011 ñu ànd ak yéen fii ci euh, kër Cheikh ci biir kër maam Cheikh Rahima Fall euh, gis ñu leen di wan ni euh, kër gi nga xam ne rawatina nag barag bi laa koy waxe baragu ndànd bi nga xam ne ni moom la tudd ngeen gis ni nuñ ko yeesalaatee ni biir ak biti fépp lañu yee salaat rek defar ko ba mu sell ba mu méngoowaat ak jamono wax dëgg yàlla. Euh, ngeen gis ni tamit euh, barag bi barag bu maam Cheikh Konkon la ndax ci la Moussa di dëkk euh, dëkk na ci ci ndànd moo waral baragu ndànd andi ko Thiès ni dëkk fa ba andi ko njaareem fii nga xam ne ni fii la dëkkoon ba fii la wuy jee sunu borom mu nekk loo xam ni du masa Euh, moom wàcc moo tax saa su ñu di ko yeesal moo tax sëñ Cheikh Rokhaya Fall di ko yeesalaat biir ak biti gis nga bu leen wanee biir bi won leen euh, ñu ngi nii tamit leen di woon biti bi ngeen gis ni ko yeesalaatee tamit euh, kon ñu ànd ak yéen fii si kër Cheikh. ci barab bi nga xam ne ni mooy barabu ndànd euh, ngeen gis ni tabax bi tamit euh, wax dëgg yàlla nii moo nekkoon plan bi nii la ci maam Cheikh dëkkoon waaye miir bi ngeen gisoon lépp ay zinc la woon euh, tabax bi tamit moom la Serigne Cheikh Rokhaya Fall yeesal ñu fàttaliku ñu tabax bi Serigne Ablaye Yaqin moom it mosoon na ko yeesal ci atum 1925 moom moo ko yeesal Euh, ba 1930 maam Cheikh joge fii euh, ba 1998 nag euh, mu tàmbali di daanu la ko Serigne Cheikh Rokhaya Fall daal di daaneel dal di ko terrasse moo waral 98 ba léegi Serigne Cheikh Rokhaya Fall noppil di fi liggéey ngeen gis ni li fi nekkoon ci zinc yëpp ñu jële ko fi di ko muré mu ànd ko tamit ak waa daayira Njaareem bu ñëwee tamit ba 2011. ñu nekk tamit ci liggéeyu barab bi euh, sëriñ bi tamit daal di ko àndal tamit ak Cheikh Sène ñu nekk di yeesal gis ngeen barab baa ngi nii ci mooy barabu ndand fii la maam Cheikh Ibrahima Fall dëkkoon lu war a mat fukki at ak juróom 1915 la ñëw fii euh, si Kër Cheikh nekk fi ba euh, wax dëgg yàlla 1930 fukki at ak juróom gis ngeen yeesalaat Serigne Cheikh Rokhaya Fall ci 98. muy tabax bi terrasse bi euh, comme ma leen ko waxee rek euh, terrasse la ko def ndax tuile la woon waaye nag euh, plan bi moom soppeekuwul ngeen gis ni lii yëpp muy ay tabax yoo xam ne defaat nañ ko fi fii tamit buñ ko ubbiyee ci biir wax dëgg yàlla am na yenn bagage maam Cheikh yoo xam ne bu ñuy yeesal tabax bi ci lañ ko dugal gis nga rek comme ni ma leen ko waxee lii yëpp ay bagage su maam Cheikh Ibrahima Fall lii Euh, bu ñu noppee tamit dañ ko war a ranger waat delloowaat ko lii ay lal la ay baye armoire nga xam ne ni yooyu yëpp nekkoon ay bagage u maam Cheikh ma Fall gis ngeen ñu denc ko fii le temps ñuy liggéey gis ngeen euh, fii sax euh, ñu ko denc tamit dañ ko yeesa yeesalaat ba pare door fi dugal yenn bagage yi le temps ñuy àggale barak bi ak bagage fóoru delluwaat rek ñu delloo ko gis ngeen lii yëpp bagage u maam Cheikh Ibrahima Fall la nga xam ne ay bagage u boppam la woon yoo xam ne ni wax dëgg yàlla moo ko doon jëriñoo nga mu ngi ñu exposé ko fi en attendant ñu nekk ci yeesalaat euh, barab bi suñu noppee nag bagage bu ci war delluwaat rek ñu delloo ko fa kon ñu ngi ànd ak yéen fii si njaareem ci kër Cheikh ci kër maam Cheikh Rahima Fall leen di won liggéey bi nga xam ne ni ñu ngi koy liggéey kër gi du ko yeesalaat. gis na nag euh, tabax bi tamit plan bi euh, Serigne Cheikh Fall Baye Góor. Euh, wax dëgg yàlla moom moo ko tàmbali woon euh, waaye nag Serigne Cheikh Ndigal da ko nekk di àggale rek ànd ko ak Cheikh Sène ñu yeesalaat ko euh, def ko lu ñuy wax finition waaye plan bi muy tabax bi nga xam ne ni fii la maam Cheikh wàccee moom Serigne Cheikh Fall Baye Góor moo ko plan tàmbali ko ndax néegu ñax la woon wax dëgg yàlla bu maam Cheikh Serigne Cheikh Fall Baye Góor di ñëw dañu jël néeg bi suul ko ci daal di mu daal ko tabaxaat. Euh, ba mu euh, terrasse ko wax dëgg yàlla daal di ko bàyyi noonu waaye jotuñu ko woon raax tamit euh, sëriñ gis nga ci yeesal bii nag ñuy yeesalaat kër gi lañ ko raax terale ko nii wax dëgg yàlla finir ko wutal ko ay buntu moo waral ñu di leen ko won nii Eh, gis nga ñu ngi nii nag jàkkaarloo tamit ba léegi fii ci eh, gis ngeen lal bi ci lalu maam Cheikh Ibrahima Fall la moom it eh, gis ngeen dañ koy yeesalaat peinturaat ko waaye lii yëpp ci ay bagaasam la laloom la bokk na ci lal yoo xam ne nii ci lalu maam Cheikh Ibrahima Fall kon ñu ngi ànd ak yéen fii si njaareem rek ci kër maam ibrahim Ibrahima Fall fii nga xam ne ni fii la wuy jee sunu borom dëkkoon fi fukki at ak juróom ci njaareem euh, ñu nekk di ko yeesalaat moo tax ñu di leen ko won léegi ñu ngi ànd tamit ak euh, Moustapha Mbaye waaw barakaatu euh, ñu ngi ànd ak yéen fii njaareem fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi jàkkaarloo ak Moustapha Mbaye fii ci biir kër maam Cheikh Ibrahima ci biir wanag bi sax barab bi ñu taxaw barab bu am solo la fii nag mun nañu wax ni fii sax mun nañu wax ni fii lañu ñu mujjee gisee maam Cheikh fii si njaareem ci biir këram sëñ Moustapha ñu ngi ànd ak yow fii ci njaareem Euh, ngeen euh, ànd ak Serigne Cheikh Rokhaya Fall euh, doon yeesalaat kër gi di ko defaraat wax dëgg yàlla ndax kër gi ni ñu ko bàyyi woon ak tey jii ku ko gis ngeen xam ne am na coppe te yow mi bokk nga ak Serigne bi ngeen ànd di ko yeesal nga nekkoon ci liggéey bi mun nañu wax ni at mi yépp ren ci ngeen nekk am na nag ay yeesal yu bëri yu fi am Serigne Cheikh Rokhaya Fall def na ko fii ci ay at 98 tabaxaat na fi tabax miiriwaat nañu kër gi te lépp gisoon nañ ko ay jamono euh, tey nag euh, ñu ànd ak yow ñu bëggoon tamit yow moo xam ne ànd nga ci liggéey bi euh, ñu fàttali ko rek ànd ngeen ko tamit ak waa daayira njaarim yépp ngeen ànd ci liggéey bi ñu taamu woon tamit ay kàddu ci liggéey bi nga xam ne ni yéen a ngi koy def ak sëriñ bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ngi sant yàlla boroom jaar fas yéene sant borom Tuubaa Xaadim Rasuul mi nga xamante ni moo waral lépp di sant maam Cheikh Rahma Fall mi nga xamante ni maanaam muy buntu yoon wi buntu mu di baabu murid bi di ñaan yàlla yal na nu yàlla fayal borom Tuubaa waaye na nu yàlla fayal maam Cheikh Rahma ak njabootu borom Tuubaa gépp ak njabootu maam Cheikh Rahma gépp muy góor mu jigéen. doomi sëñ Tuubaa ji njëkk gën a àdduna ba ki mujj gën a àdduna ñëpp yàlla na leen yàlla na yàlla na leen saa borom fay te dafa leen xéwal doomi maam Cheikh Rafal ji njëkk gën a àdduna ba ki mujj gën a àdduna ñëpp njabootu maam Cheikh Rafal gépp yàlla na leen yàlla fay te yàlla dafa leen ay xéwal bu baax a baax di sant it sëriñ Cheikh Fall góor ñi yàlla na ko yàlla fay te yàlla gën a yokk ay leeram di sant sëñ Cheikh Ndigal Fall di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ndax lii tax nga di ma Euh, lii tax nga xamante ne moo li nga xamante ne moo tax nga laaj lépp saa borom la ko jaarale ci moom ndax fii ci njaareem di kër maam Serap Fall di pàkk bu nu barkeel tabax bii nga xamante ni ci daal wéeru dana wax ni fii na maam Serap Fall génne àdduna kon Cerno fii daanaka fu ko ëpp amu fi fii la maam si rafal génn àdduna fii la borom Tuubaa Xaadimu Rasuul génn àdduna lu ko gën a kawe ci àdduna loolu amu fi ndax ñun ay murid lañu ah fii nga xamante ne nag maanaam fi la nekk ci njaareem liggéey bi nga xamante ne yàlla dogal na suñ Cheikh Ndigal di ko liggéey maanaam ab taalibeem la koy liggéeyloo ñu di ko wax sëriñ Cheikh Sène Mbadaan doomu sëriñ Ibrahima Sène Mbadaan borom Tuubaa doomu sëriñ Cheikh moo sasoo liggéey bi ci njaareem di ko liggéey liggéey bi nag maanaam tabax bii ci la bokk ndax tabax bii tey mën na ni ku tedd ki di Serigne Cheikh Fall Baye ñi moo ko tabaxoon nii mu mel sëñ Cheikh Fall Baye Góor moo ko ni def waaye nag dañ koo yeesalaat ndax màggatoon na lool sëriñ Cheikh bi fi dugg see ñu ànd fi mu xool biir baraag bi gis ti barkeel yi nga xamante ne maanaam mu ne ci biir baraag bi ak maanaam rafaatal yi nga xam mu ne ci biir baraag bi keneen bi ma ko fi dugalee bi nu waxtaanee daf ne ma day fii de fas yéene naa fi liggéey ndax dañ ko xamal ne ko bagage yi fii ne ci biir bur sañoon dey dina am ay verre yoo xam si ci la ñuy def denc bagage yi mu xalaat ni ñaata weer ngeen yaakaar ne dina baax ñu ne ko ñeenti ñeenti bibliothèque di xam naa buñ ko amoon yaakaar ne dina baax mu ne daa ko def daal di yëkkati xéwal yooyu teg ci samay loxo ñu ànd itam dem ba nga xamante ni ca ka koy liggéey ñu wax ko model bi nga xamante ne moom lañ soxla kooku daal di ñuy liggéeyal bibliothèque yi nga xamante ne maanaam moo ne ci biir waaye dafa ne ma kat liggéey bu toll nii duma ci yam rek dama bëgg maanaam bagage yi ñu génne ko buñ ko génnee barab bi ñu karale ko defaraat ko ba méngoo boroom ma ne ko loolu mën naa nekk fekk na ba ma ko fi dugal wax dëgg yàlla man damaa xalaat rek sama xalaati donga sama xalaati taalibe ànd ak moom dugal ko fi waaye ba ma def bi nga xam ne dugal naa ko fi nekk xam naa loolu yàlla nar jubal te yàlla nar koo baaxale ci kàttanu sëñ bi ma wax sëñ Cheikh Ndigal fekk boobu sëñ bi dafa génn waaye dama ko woo téléphone ni ko ah, bi day maa ngi jégalu ndax dugal naa fi ab taalibe boo xam si fii ci biir baraag bi dama ko woon bagage yeeg jeexati barkeel yi waaye daf ne ma facile na ko liggéey. bibliothèque yi itam fas yéene na fee def ay bibliothèque yoo xam si ci la ñuy def jeexiti barkeelu yi ma ciy laaj ndigal sëñ bi dafa maa wax ni ma Moustapha ma ne ko Fall mu ne ma ab taalibe lu mu xalaat ci këru kilifaam ci lu baax mu def ko loolu wàññiwul dara ne ma nag loolu ndigal la sant naa leen ko ndigal la ne sëñ Cheikh daal naa ko defar lu mu ci gën a man ci ak ak rafetal ak ak nu mu gën a baaxee rek loolu moom maa ko santaane daan ne ma. keroog bi nga xamante ne yàlla dogal na ñu dem ba nga xamante ne maanaam bis bi ñu war a commencé liggéey bi bi nga xamante ne maanaam matériel bi ñëw na ciment yeeg bagage yi damaa woo sëriñ bi ndax ab tali bi bu mu mën a doon saa su nekk soo bañee jum del jëfe ndigal ndax sëñ bi dafa maa ma soxla ma que nit dina liggéey ba pare te biir liggéey boobu yàlla du ko ci fay moom suñu soxla ndigal ma ne ko lu tax mu a ma da ca amul ndigal kon képp ku mu mën a doon rek yàlla ngay jëfe Ah, te xam ne ndigal moom mooy bunt bi nga xamante ni caabi la bu appui du tëj bu yeesu du tëj kon yàlla nu yàlla def ñu doon taalib yoo xam si guddee bëccëg saa su ne dañuy jëfe ndigal sëriñ bi bi loolu amee ma woo sëñ bi sëñ bi ne ma Moustapha ma ne ko Fall mu ne ma na nga génne bagage yi waaye boo ko génnee day am na pantre bu daal ne ci biir na ko fa dugal soo feesee na ko def ci werandaay yi bu feesee am na beneen néeg boo xam si moo ne ci biir na nga ko fa dugal ma ne ko baax na mu ne ma ana Njóogu Njaay ma ne ko mi ngi fi mu ne ma nanga ko woo su ko fi mu jàpp ci ma ne ko waa baax na Fall boobaak léegi itam wax dëgg yàlla maa ngi Njóogu ñoo ànd fii ci biir wane wi di ci xëy ci gont ci liggéey ba liggéey bi mel nii loolu daal moo doonoon liggéey bi ñuy sant sëñ Cheikh Ndigal Fall yàlla nu yàlla fayal sëñ Cheikh Ndigal ndax jàmbaari góor la jàmbaari bi islam la joo xam si maanaam fi ñu toll dara ñor ko dul ak taari bi moo ci lay xëy ci lay gont waaw di ñaanal tam ni ma ko waxee léegi rek njabootu maam Cheikh Rafal gépp bàyyiwul kenn ñépp ngi ci biir yàlla mi fay yàlla na fay ngeen ngi fay di ñaanal sëñ Cheikh seen daan mi nga xamante ni maanaam liggéey bii moo ko sumb man ko di ko def ci kàttanu sëñ bi di ko def ci barke maam Cheikh Rafal di ko def ci barke sëñ Cheikh ndigal Fall di ko defee tam ci ndigal suñ Cheikh seen baaraan yàlla na ko yàlla gën a doleel di ko kàttan bu baax a baax ah xam naa sax yàlla dina ko def ndax keroog wax digg yàlla bi ñu ànd mu yëkkati xéwal yi di ko jox dafa ma wax ni ma day liggéey bi waxuma la man seex waxuma sama samay doom waxuma samay sët waxuma samay sëtët waaye képp koo xam si ab taalibe nga boo xam si yaa ngi ci biir yoon wi liggéey bi fasal naa la yaa ngi yàlla nga dugg ci biir nee na mi ngi fasal képp ku di comme mën a doon liggéey bi nga xamante ne mi ngi koy liggéeyal maam Cheikh Fall nee na liggéey boobu talib bu mu mën a doon yàlla nga dugg ci biir ba di ci jariñ kon kooku yaakaar naa li muy def moom wax dëgg yàlla bu doon buntu mën a ubbi na ci biir liggéey bi yéen yéen a ni ci ñëpp ñuy sant bu baax a baax a baax daal ndax woo moom wesuwul koŋ liggéey bi tam dafa des itam yeneen ndax am na loo xam si moo tax ñu liggéey bibliothèque yi muy bagage yi barkeel yi loolu moom dugalagun ko waxtu wu maanaam fu ñu ci toll daal sëñ noo maanaam lu ñu ci war a wax rek daan ko ci wax ah yow mi itam sëñ bi moo la yebal fii yaa sëriñ Aliou Ndiaye mii ngeen ñëw maanaam jël si istilu liggéey bii ndax ab bi du def lu dul ndigal bu dul woon ndigal itam xam naa ni ñëw nga leen fa jaar wax dëgg yàlla kon yaakaar naa yéen ñi ku leen xam-xam ne li ngeen def moom dangeen ko teg ci ndigal kon. ñi ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax baax di ñaanal sëñ bi mu yàgg fi ak mboolem taalib bi boo xam ne sii aju nga ci yoon wi bu man a doon yal na yàlla defal ñëpp jàmm na yàlla defal ñëpp ak wér di ñaanal sëñ Sidi Moxtaar yàlla guddal aw fanam te wéral ko ak mboolem njabootu borom Tuubaa gépp di ñaanal sëriñ Cheikh Jëmb faal yàlla yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem njabootu maam Cheikh Fall gépp bàyyiwun kenn képp koo xam si say tànk mi ngi jëm sa sa bopp mi ngi jëm kaw say tànk jëm suuf nga def sëriñ mbaa nga def taalibe ku mu mën a doon ñu ngi lay ñaanal jàmm joo xam si ju ànd ak wér ak ngërëmal sunu borom tabaaraka wa taala te kenn bañ a bew te sëñ bi nga may ñu doole parce que jun mën a liggéeyal sunu borom tabaaraka wa taala waaw na ñu gën a dolli te doole ñu te defal ñu ak taalibe taalibe gu rafet sëñ bi yàlla ñu ko defal ndaxte taalibe bi lépp ngi ci faal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kon ñu bàyyi leen ak suñ njóogu njaay mi nga xamante ni mooy président daayira njarim dina am lu mu ci war a wax jërë ngeen jëf jërëjëf